Euh, l'ambassadeur des talibés juste pour euh, mën a góorgóorlu ak wàññi taux de mendicité si Sénégal. yag na nek lo xamné xalat nako bu yag mais juste xam nga bur yalla mom xamul lu war lu jot la xam ma don xalé bu ndaw yag gis li am si mbédé bi environnement bi neexu mané pourquoi pas ma jéem a góorgóorlu dox ci ak ñenn équipe bo xamanténé dinañ ma mën a gunge affaire bi jappalé ma moo loo waral tay mouvement ta liberté def ma ni sa doom. am na benn dernière équipe bu nekk sama ginaaw boo xam ne ñu ma si dooleel bu baax a baax a baax. affaire taalibe juste mooy wax bi rek thème bi mooy def ma ni sa doom parce que doomu jaamur dëgg la doom dañ leen war a di nemmeeku sàmm leen et parce que dañoo bokk si environnement bi dañ bokk si société bi waaw looloo waral ma ne pourquoi pas ñu jéem a dugg ñëpp parce que dañu ne ensemble on peut fair faire góorgóorlu jàppale taalibe waaw ku si nekk rek nga def ni sa doom wala ni sa rak. bëri na ñoo xamante ne man yàlla daf ma jagleel ay nit yoo xamante ne man si ay wàllu professionnel si ñooñu ñi nga xam ne dañuy yëngu si football parce que man si ñooñu laa gën a amal te benn infinité boo xam ne affinité boo xam ne ñu ngi may dimbali lu bari bari bari comme ku si mel ni genre Amane Ndiaye Diédhiou l'international di sama jumeau moom moo nekk incha allah euh, mooy président bés bi moom la ñu def suñu parrain d'honneur waaw suñu marraine d'honneur ñu ngi koy def euh, Oumou Sow Amazone de Dakar muy suñu tata bu baax aussi bëri na ak ñeneen ñeneen ñeneen ñoo xam ne boole na leen si bés bi pour ñu war ñu mun a jàppale ku si mel ni Assane Diousé Babacar Gueye Baba Diawara ñoom ñëpp daal ñu ngi suñu ginnaaw pour jàppale ñu si bés bi incha allah rabbi am na lenn loo xam ne tëral nañ ko pour bés bi incha allah parce que programme du jour si suba si incha allah ñu ngi bëgg a wàccee amal wàccee kaamin pour nga xamante ñaanal ñi nga xamante ñoo génn àdduna ñëpp rawatina sama yaay fu mu nekk gënal ko fi mu jóge

loolu mooy suñu yéene parce que bëri na ay mouvement yoo xam ne ñu ngi fi ku si nekk yaa ngi jàppale di jëmale sa côté di def lu ne pour mun a jàppale taalibe mais dañu war a mun a woo aussi ñi nga xamante ne ñoo ñoo am ñu jàppale ñu ñàkk parce que ñun ay jeunes lañ yoo xam ne amuñu mais taxul ne suñu xel mu ngi si ñi nga xamante ne ñoo ñàkk parce que àdduna nit daal koo tane rek jàppale ko parce que buur yàlla mayewul te dafa dénkaane ñu bàyyi si xel.